yow sama mbokk lan moo tax xijaab du bokk ci diine ànd ak xijaab lu muy bari njëriñ yépp bokk na ci njëriñu xijaab comme nu ko borom bi subhaanahu wa junjee ci téereem bu màgg bi zalika adna ay yurafna falaa yuzayna wa kaana allahu gafuran rahima yàlla subhaanahu wa mu ne soo leen muuroo yéen soxna yi da ngeen di mucc ba nga xam ne kenn du leen kon nga déggee si ne xijaab kat dafa am ay njëriñ bokk na si ay njëriñam salaamatul mar'ati min al aza al qawli wal fi'li bi maana soxna si dafay mucc ci lii nga moom mooy loraange bi nga xam ne mun naa jóge si kaddu nit ki bi maana masala nga romb rek euh, góor ñi sandi ay baat di wax si sa yaram di wax si sa jëmm ndaxte loolu duñ ko gis yow lan moo tax ndax dangaa muuru ginnaaw bi nga xam ne dangaa muuru muur say taar kenn du la joxoñ kenn du la wax kenn du la piis au contraire maanaam dañ lay wormaal lan moo tax ndax dangaa wormaal digl digle yàlla bi ak digle yenentam bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam noonu itam bokk na si ay njëriñam moom mooy xijaab comme nuñ ko waxee léegi mooy da ngay mucc ci loraange jëf ci loraange jëf yaakaar naa bari na li ngay dégg ay cas viol ak bari yoo xam ne daf koy dafay am ci adduna bi moo xam suñu dëkk la moo xam euh, feneen la waaye yaakaar naa dina ñëw lool lool lool fi ngay déggee ne am na benn soxna soo xam ne dafa xijaab wala am na benn soxna soo xam ne dafa niqaab dañ kaa violé loolu mooy yaakaar naa lu néew nga koy dégg su fekkente ne dafay am lu néew a neew a néew lay doon ndaxte ñoom sona yooyu dañuy génn nekk ñoo xam ne dañaa muuru dañaa sàmm seeni taar góoru jàmbur du gis ñoom lu muy xemmem la moo tax ndaxte kat dañaa muur lépp luy seen taar ak lépp loo xam ne dafay fitnaal góor ci ñoom moo tax nga gis ne yàlla subhanahu wa daf leen di aar def leen di sàmm ndaxte kat yàlla subhanahu wa taala soo ko respecté respecté ay kàddoom respecté ay leen dina la wan ne man dama lay fay si àdduna ak àllaaxira li ma lay fay si àdduna ak àllaaxira bokk na itam si njëriñu xijaab moom mooy ixsaanu zanni ilayhinna annahunna afifaat bi maanaam soxna si nga xam ne dafa muuru dañuy rafet njort moom ne kii kat ku sàmm la kii kat ku sangewula la kii kat ku mucc la ci lépp loo xam ne lu aay la lépp loo xam ne jaaduwul lan moo tax ndaxte kat du muuru mu dem si baali ba du muuru mu dem si concert ba du muuru di dugg si baar yi du muuru di jaxasoo góor ñi di euh, foo ak góor ñi déedéet lan moo tax ndaxte dafay respecté muuraayam dafay mm, teral muuraayam waaye itam dafay yëg ne man kat dëgg-dëgg lii dépassé naa ko dëgg-dëgg ruus naa ko li dégg-dégg lii nekkul loo xam ne sama cër la nekkul loo xam ne sama wàccuwaay la lan moo tax ndax mu waraay bi nga xam ne yàlla subhanahu wa na ko te mu respecté ko lool. noonu itam bokk na si euh, njëriñu muuraay maanaam moom mooy soxna si yi nga xam ne dafa muuru dañ koy jox respet tawqiru haadihi al mar'a al mutahajjiba biduni an tatluba zalik bi maanaam si nga xam ne dafa muuru dafay am lu doy waar dafay am lu màgg mooy lan mooy nit ñi dañ koy respecté dañ koy jox cër te fekk moom sax waxul jox leen ma respect waxul respecté leen ma waxul jox leen ma cër waaye nuñ koy gisee si muuraayam bi ci wormaal boppam ci nobb ay taaram day tax nit ñi respecté ko ñu jox ko cër ñu wàccee ko wàccee bu màgg ba nga xam ne lañuy moytu duñ ko laal duñ ko duñ ko waxloo duñ ko foowee luñ ko cokkaas lan moo tax ndax de ndaxte kat dafa respecté kaddu boromam dafa respecté kaddu yenentam bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla subhanahu wa ko loolu kon nga gis ne soxna si dañ koy jox cër dañ koy jox respect lan moo tax ndaxte kat dafa respecté wax yàlla ak yenentam bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waaye itam bokk na si njëriñu muuraay moom mooy xasmu mataamii taamiin moom mooy dagg euh, lépp loo xam ne ñii nga xam ne ñoom ñooy euh, saay-saay yi maanaam kii di muuru kii nga xam ne dafa muuru muuru islam bi yàlla santaane euh, di nga gis ne moom ñooñu góor ñooñu moom daf leen di jaaxal du am duñ ko jaaree fenn duñ ko jaaree kanam duñ ko jaaree ginnaaw duñ ko jaaree suuf duñ ko jaaree kaw lan moo tax ndax dafa tëj ay buntam yépp ba nga xam ne moom dafa armé wu à 100 pour cent dafa blendé wu si ñoom mënu mënuñu si ñoom dara mënuñoo banneexu si moom du si waxam du ndaxte telul waxtaan ak ñoom du si kaf du kaf ak ñoom duñ gis si moom loo xam ne jaaduwul waaye itam du duñu se xanju si moom parfum boo xam ne maanaam parfum la moo tax ndaxte moom dafa nekk koo xam ne dafa respecté boppam waaye itam dafa xam ne fu mu war a parfum xam na ko waaye fu muy war a taaru itam xam na ko waaye itam fu mu war a feeñal ay taaram xam na ko waaye su génnee ci biti dafay nekk koo xam ne ku respecté boppam la waaye itam ku yëkkatiku la waaye itam ku màgg la koo xam ne ku gis rek daf koy respecté waaye góoru jaamu du ko gis ba di ko xemmem la moo tax ndaxte doo gis moom loo xam ne daf lay fitnaal waaye itam bokk na si njëriñu muuraay moom mooy yar soxna si moom mooy lan mu yar soxna si te moom bokk si njëriñ yi gën a màgg moom mooy yar soxna si di nga gis soxna soo xam ne dem démb muuruwuloon waaye tey su muuroo dafay nekk koo xam ne ku yaru la dafay nekk koo xam ne ku del la dafay nekk koo xam ne ku moytu la ay mbir yu baree bari maanaam dafay bañ mbir yu bari lam moo tax balaa ñuy jam muuraayam lan moo tax balaa ñu koy sikkal lan moo tax balaa ñu koy wax ne yow di ngaa muur di wax nangam yow di ngaa muur di jëf nangam yow di ngaa muur si dem di dem si place sangam déedéet loolu yëpp da ko def lan moo tax ndax muuraay bi moom moo ko yar. ndax muuraay bi moom moo ko yar loolu sama mbokk njëriñ yi yëpp yaakaar naa du man kese maa ko gis waaye mbir la yoo xam ne itam nekkul si téere bi ki lañ kese lañ koy jëlee waaye lu ñuy dund la di ko gis li nga gis soxna yu muuru yi nu ñu yiwee nu ñu dalee nu ñu baaxee nu ñu soree lépp loo xam ne euh, lu safaano la loolu moom la moo xam ne ñun ñëpp sikkuñu si nekkul loo xam ne tey dañ koy wax rek maanaam di ko imaginer waaye lu ñuy dund la di ko gis lu ñu dund la di ko gis ko yow sama mbokk su fekkente ne ànd nga ak man ci lii nga xam moom laa wax ni dëgg-dëgg yaakaar naa moom doo wax ni àndoo ak man ndaxte nekkul loo xam ne tey dañ koy lambatu waaye dañ koy gis nii suñu kanam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dëgg ak topp ak tawfiq waaye itam di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsagal suñu soxna yi ñu muuru ñu muur seen kanam ñu muur seeni yaram Euh, lu mu néew ñu muur seen yaram moo xam dañaa muur seen kanam wala muuruñu ko ndaxte ñaari yëpp borom xam yi nangu nañ ko borom xam yi wax nañ ko ñii wax nañ ne muuraay muur sa kanam dafa war ñenn ñi ñu ne déedéet nekkul lu war waaye sunna la euh, waaye daal li nga xam ne wuute woon ci moom may ne sa yaram bi yëpp da nga war a muur ba mën a sa xar kanam ak sa tënk loxo sa xar kanam ak sa ko loxo su fekke ne dangaa def taar nag ci sa loxo xam nga xamale da nga ko war a muur la moo tax ndaxte taar boobu góor jaam koo gis soo defee taar itam taar itam ci sa kanam xamal ne danga ka war a muur la moo tax ndaxte taar boobu góoru jaamur war koo gis waaye fekkete ne yow defoo taar si sa tenk loxo wala defoo taar ci sa xar kanam boobaa borom xam na ñoo xam ne dañoo ne warul ci yow nga muur sa kanam ginnaaw ne yow defoo taar ci sa xar kanam waaye su ne dangaa def taar nag ci sa tenk loxo boobaa xamal ne danga ka war a muur ndaxte kat santaar am na ñu ko moom am na ku ko moom am na ku ko jagoo am na ku ko war a gis te moom mooy sa jëkkër waaye itam ak say mbokk bi maanaam say euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo a jege si góor ñi si góoru si góor ñi bi maanaam sa comme sa papa comme ses frères ak ñu mel ni ñoom.